mu ne mu dem ay diir mu ne ay imaam ne ay kilifa ñaan jigéen bi pour mu dellu si sëy mu ne jigéen bi daa saa su neera daf ko dee wane nañ xaar bi si kanam nañ xaar bisi si kanam mu ne ko mu xaar nag si xaar boobu noonu ba ñetti at jot mu ne ko legi nag man daal fu mu nekk nii xaar bi dafa doy dama bugg a taka beneen jabar mu ne ko mën ngaa taka jabar waaye man daal man moom dellu seegu ma maa ngi toogum suma kër yaay mu ne léegi loolu am na juróom benni at juróom-benni at ba léegi jigéen bi daal bugut a ñib si si kër jëkkëram mu jëkkër baa ngee mu ngee neexalaate mu nge def lu nekk waaye ndaw si ba léegi mu ngi sës daal mu ne léegi ndaw si doom yi fi ñu nekk muy kër yaay ndaw si ni neexut ko moom waa ji parce que def dee dem di seeti doomam mi sax gis anam bi naka la ko gars di naka lañ leen dee yaree foofu noonu mu ne loolu doyut doyut xelam mu ne daal fu mu nekk daf dafa tray ba nga xam ne dem na ba jëli doom yi foofu noonu si kër bi indi ko si këram waaye nag tamit si ah, si loolu noonu indi na doom yi si këram bi fi nga xam ne am na beneen jabar waaye léegi ndaw si daf ko yo yóbbu si mbaxana fum mu nekkee benn mu ne dafa bugga daal ñoom moom moo jëkkëram ñu toog daal ñu wax seen diggante mu ne moom na sëy tas seen diggante fu mu nekk nii waaye tamit li gën a métti ah, góor bi mooy ne ndaw si mu ne fa bëgg a doom yi nga xam ne tray na ba dem jëli ko foofu jëli leen foofu noonu si kër jabar bi mooy ne dafa buga a doom yi delluwaat si kër bi foofu noonu mu te kër googu noonu yaay bi amul jëkkër ah, ñaari magi jabaram yi tamit dañ si yoon ñu tas ñu ngi toog ñoom daal lu tax ñu bugg a ndaw si daal toog foofu noonu mooy ne lu ndaw lim lim ko dee yónnee foofu enjoy seen boppa di def nu leen neex waaye kër googu nu nekk kër boo xam ne daal doy na xelam pour doomam mi war a dellu si foofu noonu ah mu nekk lu daw yaram nag léegi li ñoo def mooy ne dañoo ànda askan bi rek ñu seet la la ñoo xelal waa ji parce que waa ji daal bëgg na nit ñi xelal ko naka la moo def balaa moo dem fu yoon bi nekk digganteem ak jabaram. mbokk yi bi tey rek xam ngeen ne saa yu ñu jàngee leetar dañ dee génn si biti waxtaan ak askan gi ngeen toppañu ci tontu yéene. ausu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maama wax nga ma wax boo xam ni wax bu daw yaram la dégg naa ko euh, képp koo xam ni nit nga waxuma sax jullit waaye ku di nit rek boo déggee wax ji dana la jaaxal dana ub sa bopp waaye nag euh, yëf yi man li ma gis ci mbir mi sëy bi ci boppam dama ragal ne dañ ko waaju toon ndax sëy ci boppam suñ ko waajee balaa ngay takk jabar dañ ne ba takkal takkal goro balaa ngay takk jabar soo takkee goro ba noppi door a takk jabar boo takkee jabar am jabar tey goro moo lay mën a may nga am jabar ju baax non seulement nga am jabar ju baax waaye moo lay may ëllëg jabar doom yu baax soo gisee jafe-jafe yi am yow par rapport ak li ma expliqué ba ma dégg ko ci sama nopp yi man euh, li ma gis mooy kii fa mu takkee kilifa nekku fa ba juróom benni at yow nga toog di xaar jigéen joo xam ni mu nga toog kër yaayam yaayam amul jëkkër ay magam amuñu jëkkër ay rakam amul jëkkër moom ci boppam mu am jëkkër am am ak yow doom ñetti doom ba pare jàlla ba ku jël sa njaboot gi dem toog foofu ne dafaa toog foofu noonu pour waste time yow xamuloo kañ la jëm ah ak ni jigéen fiire nga ne ko damay takk jabar mu ne la waaw takkal jabar nga ne utal néeg seen kër may aye si mu ne la déedéet mais kooku daf la fase bu yàgg yow moom waa ji bëgg-bëggam moo ko fa bàyyi waaye moom bañ ko bàyyee yàgg na léegi wax ji kay mooy doom ya nga xam ne moom la àndal nee na kii mu takkagum yàlla joxagul leen bant lim gum kooku la ko yàlla boole kii te kër ga nga xam ne fa lañ bëgg a yaroo googee kër bëggul ay doomam yaru fa dëgg-dëgg daf ko yéex a seetlu soo donc man li ma gis mooy euh, moom neex dem di ñàkk dem xaadi parce que xaadi oo na ko ba pare te xaadi buur la il faut mu iji ko foofa kay fala bañ gi ak nangu ji di amee man de bu dee man pour xëy xëy ren ne gedd naa bàyyi naa samay doom du ma ko def yoon moo ma koy moo ma koy xañ wala mu jox ma ko. góor gi di ma ko digal mooy si suma xalaat bu gàtta na fexe kem kàttanam nu mun a def rek mu jël doomam yi gannaaw moom xelam dalut foofu ah, na jël doomam yi ndaw si nag moom gannaaw nangu ko sëyal ah te moom def na lu nekk nangu ko séyal mm-hmm. boo xasee ba gumboo rek da ngaa gumba fatu doo dee ga wala seytaane koobaa mm-hmm. doo dee gis dara ti jànq bi seytaane kooba na ko parce que sëy ni mu jafee mm-hmm. jëkkër ni mu naxaree am nga am jëkkër bu la nii rek toppal la rek toppal la rek munta am ci yow ndigal tamit mu bëgg a jël sa doom yi pour adob leen góor gu baax la jigéen ji li ma ko digal mooy na wuñu kuwaat dellu ci séyam na wuñu kuwaat dellu ci séyam àddina bi gàtta na fan yi gàtta nañ kenn guddaatul fan te ku dee di nga taxaw sa kanam bàmmeel te soo taxaw sa kanam bàmmeel nañ la laaj naka nga doon sëyee te di ko expliquer li ma digal góor gi moom na jël doomam yi mu yar leen yar bu rafet bu fekkee dëgg rek la yàlla bëgg góor mu am beneen jabar boo xam ne mun koo uufal doomam yi te moom daal xelam daal daj dalu xale yi ñu si kër boobu ndax yaay xale yi ak famille xale yi seen famille ji bi yegg ci jigéen yi bu leen wóolu jël seen doomi jigéen di ko jox dénk beneen jigéen ndax jigéen jigéen yi nanguwu leen loolu beneen jigéen yaral leen seen doom nanguwu leen su ma doon sama su ma doon sama man su doon mën a daal man damay muñ xale yi rek ci yàlla ku muñ daal danga ma dana gaa ñi tey lii la ñu waxtu mee si seen programme jamono ji waaye nag di leen fàttali rek ne si seen lettari xool yi ci ñi nga xam ne email moo leen gënal yónnee lañ ñu ko si jamono ji at yahoo dot com jamono ji at yahoo dot com ñi nga xam ne ba tey rek téléphone moo leen gën a yomba xool lañu si 36 555 32 36 555 32 seen xarit Mama Jëy di leen dig daje ba beneen bés bu ay ci waxtu bi jërë ngeen jëf leen nuyu fii si programme bi Fatou Show te nag dañ leen ñëwal Dakar comme ni leen ko waxee à birthday Viviane la gis ngeen ko advertisement si yëpp si télé bi. happy birthday. waaw naka birthday bi nag. thank you birthday baa ngi nii rek. faral nga ko de ah ni ñuy def kon fii mooy sa boutique bi. waaw fii mooy Bigo. surely, surely. léegi guddi gi nag fu ñu dem nii sa waat. ayca nañuy dem léegi uh, nii. cosaan. cosaan. waaw balance. Mm-hmm. après reer. reer après dem ko demaat cosaan joué ji. waaw kon ñu ñëw dem. kon Gambia attention Gambia attention Viviane. <laughs> attention Fatou Show. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday.